asalaamaaleykum amateur foot yi tey dañuy ñëw ci kan Aliou Cissé mu nekk sélection équipe nationale bu Sénégal moom Aliou Cissé tey nag dañuy ñëw waxtaan ci biir nation yoo xam ne ni tey am na ñoo xam ne ni am nañu chance pour mun a ñëw rejoindre équipe nationale bu Sénégal tey bu doon wax si Malick Thiaw bu nekk Milan ñu bokk ak Allemagne moom Malick caw boo xam ne nii. défenseur bu mun lu muy def la te am na talent moom Malick Thiaw tey nag bu ñuy wax ci bi nation dañuy wax ci coach Aliou Cissé mais aussi ci fédération bu Sénégal léegi njëkkante la ci bi nation njëkkante la ndax tey lépp ci bagage bi la maanaam ci depuis départ bi la ci début bi la kon nag il faut suñu entreneur Aliou Cissé muy teel a jóg di dem waxtaan ak jeunes yi mais di dem di waxtaan ak ak seen parents pour rek ñu mun a rejoindre équipe nationale bu Sénégal ndax léegi njëkkante la boo yeexee rek yeneen équipe nationale dañ la siy jiitu te buñ la jiitu rek pour ñu ñëwaat fii rejoindre équipe nationale bu Sénégal du yomb kon nag teel a jóg dem waxtaan ak ñoom pour rek ñu mun a rejoindre équipe nationale bu Sénégal loolu lu baax lay doon aussi il faut ñu gën a dem di waxtaan ak jeunes yi ñu bañ a di xaar. ndax des fois boo ne da xaar rek doo fa fekk dara loolu moom moo ñuy dal te boo xoolee kaawu Malick dañ ko sagane boo xoolee tey Allemagne ñu ngi koy woo mu ngi dem di rejoindre équipe nationale bu Allemagne kon nag tey moom amoon na sens ñoo rejoindre équipe nationale bu Sénégal ndax bokk nañ ko ak Allemagne mais fii tamit bokk nañ ko ak ñoom ndax suñu bi nation la mun na ñëw rejoindre équipe nationale bu Sénégal kon nag tey lu ñuy wax muy wax ci fédération bi ñu dem di teel a waxtaan ak jeunes yi pour rek ñu ñoo mën a rejoindre xam ñu nag yaa ngi di def liggéey bu am maana mais aussi liggéey bu am solo di dem di waxtaan ak jeunes yi di dem di waxtaan ak ak bi nation pour ñu ñëw rejoindre équipe nationale bu Sénégal gis nañu Aliou Cissé muy def ay jéego pour rejoindre ñu ñëw rejoindre équipe nationale bu Sénégal mais des fois il faut ngeen gaaw des fois nag il faut nga dem waxtaan ak jour bi pour rek nga mun a xam lan moo nekk ci moom loolu aussi def ci baax te boo xoolee kaaw Sofiane Diop ba léegi moom dem na ba génn na bëgg nañoo rejoindre équipe nationale bëgg nañoo jouer équipe nationale bu Sénégal kon nag loolu pour rek lu yomb la maanaam maanaam tey bu ñu demee mun nañu teel a jóg ci. jeunes yooyu ñu rejoindre équipe nationale bu Sénégal boo xoolee Sofiane Diop milieu bu ñu soxla la milieu bu am talent la bu la vivacité mais aussi am technique ba pare ay jour le jour défensivement offensivement Sofiane Diop kon nag tey bu rejoindre équipe nationale bu Sénégal am lu muy apporter équipe nationale bu Sénégal kon nag jot Aliou Cissé